Denga nga noppaloo dee nga noppaloo dee nga acey loolu mbokki Sénégal rawatina Mbok région bu Thiès gaay ne woon naa jamais 203 waaye jinne bu bëggee Dakar ku yéeg ci suuf nga jëm waaw waaw mbokk yi Pambal TV vous présente Pambal Production Pambal Production seen base mi ngi nekk fii ci diwaanu Mbapat nekk foofu ci siège u Pambal TV ah boo jokkoo ak ñoom lépp loo xam ne am nga ko ci. Jàkkaarloog programme muy xew bu munti doon mariage baptême ay gam, ziar les plombs munti am dawal nga le ak ñom lepp lo ci wala nga ko VIP I'm aussi ay VIP lumière sonorisation les lo xam ci décoration la amuñu ci morom lepp lo xam ni tamit bëgg nga ko ci organisation a Pambal production taxaw nañu ngir askan wi région de Thiès ak

wàccuwaay Mbàkke balay sax bu dul demam gii ci tukki bi wala nasaraani te kon billaay ñëpp dem niraani sama ma ko waral balay sa buri bu jàkkaarloo sa jëmm ji xam ni dara soxla lu dul jaamu yàlla ak dimbali jaam ñi yal na la yàlla yàggal ci jamono dana wax ne nga sa xam naa la xam naa la nga sama ma waxoon kitaabu kon boo yëkkatee alxuraan di ko di jël ay di leen jàngal alxuraan di jàngal alxuraan dañuy wax ni delloo nga mbaat jox ca ndaala kon Mbàkke noo lay jox sa wàccuwaay di jox siyaaru si Asan Kan di jox siyaaru kii toog di Cheikh sëñ Xaadim Kan ngeen mas a daje benn jataay boo xam ni boobu ba léegi dalay waxtaane bëgg laa seet lool lool waaye jamono xat ci moom ak lu ko bàyyam di def loolu bare bare waaye kër ngeen gisantee ak tey li mu lay waxtaane bari na noo ngi lay siyaare Mbàkke di la jox sa wàccuwaay wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Baye Cheikh Thiour di jéglu bu baax di jégalu bu baax ci xëy na fiñ ko taxawalee waaye ñu delloo ko ci lañ daan wax rek muy kàddu ndigal fu mu la dab amatoo sañ-sañu dem sëriñ bi ni ko bàyyi Cheikh waxee dafa am ci yeneen yitte yu mu war a jëm tax mu sàkku teewaayu jëmmi Sëriñ Tuubaa jëm fi teew saafoon teg mbokki taalibe yi defal leen ñaan bàyyi leen ak sëriñ Xaadim Kan mu àggale ak ñun jotaay bi kon loolu moo sabab taxaw bi mu mel ni sëñ Mbàkke Mohamed duñu ko présenté waa dëkk bi duñu ko présenté sëñ Xaadim ndax xam nañ ko bu baax te it moom xam na dëkk bi bu baax yàlla dogale it mook sëñ Xaadim mii bis bi ñu doon fasal sëñ Abdou Gumaay Diop mais soxna fii ci Touba Kër Bakar Touba Wante keroog ñoo fa bokk benn jotaay ñoom ñaar ba jotaay ba jeex mu daje woon ak ansaarul xadim boo xam ni moom mi moo ko taxawal ci tund yi ñu nekk boole ay daaira yoo xam ne ku nekk yaa ngi bere woon di yëngutu di liggéey sëñ Touba mu ñëw ne leen ànd gi moo gën a wér boole dëkk yëpp ñu nosu ba tey ji boo xoolee dëkk yooyu yëpp ñoo daje ci gàmmu gi sëriñ bi mi ngi ànd ak imam sëriñ Kora Samb directeur al azhar bu Touba Kër Bakar imam oustaz Ndiaw Wade di imam bu Touba Wade ak imam Mor Wade bii moom tamit Touba Wade ànd ak sëriñ Moussa Cissé bii di sëriñu daaray alxuraan ànd ak rakkam sëñ maam Maram Mbakke mii bés bi rëy ci moom ba ñu ko ko jotalee mu xamal ne nu bis boobu day sama bisu bopp la te it noonu la ko defee léegi la fi jóge fi bi ñuy waajee julli timis wala bi ñu jullee timis ba sëlmal benn mbokk taale bi bu wàññeeku ci dëkk bi ñu doon ko denc bi mu ko yëgee dafa taal otom daal di ñëw teewe si denc bi moo ko taxawee ba ñu jébbal ko boromam mu joxe ñaan yi ànd ak imaam daal di delluwaat këram mu ne kon day dellusiwaat ci gàmmu gi kon ñoo ngi jébbalu baax ci dagg gi mu dagg bi foofu waaye suñ Mbàkke yow suñ diggante ak yow yaakaar naa dootuñu ko seeral sëñ Xaadim duñ ko seeral mbooloo mi ndax xam nañ ko bu baax yàlla boole nañu tey it ni ngay doxee moom nga fekk nu nekk ci yoon woowu nga ñëw ni kaay la nu ànd nekk ci yoon woowu ko loolu nag alhamdulilah ndax sëñ Asan Kan borom nasrun minallahi bi wajur sëñ Xaadim bii toog defe naa ni loolu moo ko boole woon ak ñun mu nuy orienté di ñu gindi ba tey jii alhamdulilah sant nañ yàlla bu baax di sàkkuwaat mu dolli ñu ñaan kon noo ngi tuub bu baax ci kàddu yi xam naa dina dellu siwaat ndax kàddu yi war a jóg suñu diggante ak sëñ Assane ak sëñ Xaadim mii mu yebal ak délégation bi jóge Thiès bàyyeekoo ci dëkk bi ak imam ak chef de quartier ñu ngi nii toog yaakaar naa egg bunti kon sëñ bi dañuy gàttal foofu rek di jégalu bu baax ci kàddu gi Oustaz Mor Wade sëriñ bi dafa wax ni nga ñëw jël kàddu gi. sëriñ bi dafa wax ni nga yëkkati kàddu ci turam ak délégation bu àndal bu paree mu def ñaan ñu daal di wéyal jotaay bi. الله وصلى أبدا على الذي به سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وذكي لبي وافتحا ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثليا سدد لساني نور جناني صف اماني واضد براي بارك بسرين بوا وكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته yang yëkëti nuyoo islam nuyoo murit yóbbu taalibe ينوي اي بوكي bokki taalibeem waaye nuyoo kilifa bi nuyu ay bokki taalibeem te mooy nuyoob islaam te moo di assalaamu aleykum wa rahmatullah nuyoo boobu ñoo ngi ci jiital cheikh muhammadul muntaqa ibnu cheikh muhammadul bashir ibnu cheikh alxadim radiallahu anhu di alxalifatul aam li tarixati almuridiya yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mànd ku wér Syah Muhammadul Muntaha yang na fi yàgg lool te ànd ak wér ñu Muhammad ko yëkkati ci turu ak Cheikh Mouhamad Mbacké mi nga xam ni jotaay bi ñu toog moom la fi yàlla def tey muy Cheikhul Khatib muy nuyoo boo xam koy ci Serigne Khadim Serigne Hassan ñaanal mu yàgg fi lool te ko kan di ko ñaanal kilifa ga di ko ñaanal mboolem ñi nga xam ni ñooy taalibe ak donge yépp di ko wàccee ba ci ki dogal mu jiite mbirum diine ci dëkk bi di al imam abdullahi dem di ko ñaanal moom it suñ borom waaye fal yen bi di ko wàccee ba ci kilifa dëkk bi ki nga xam ni moom la yàlla dogal muy chef de quartier bi di ñaanal borom mu yarafa yu waaye fal bi waaye di jël nuyoo bi di ko teg ci jëwriñ sëriñ Bàcc Diouf mi nga xam ni moom la yàlla dogal mu nekk ci bopp daayira nuuru daaray ni Touba Kër Baba Alima nuyoo bi bu nuyoo ñooñu rek dana matale waa dëkk bi yëpp sëriñ bi nee mi ngi nuyu góor mi ngi nuyu di nuyu mag di nuyu ndaw wala fi ñooy wax ni xalam wu dajul suuf kon dañuy jéem a tuddi yëpp waaye innamal a'malu binniyat jëf yëpp yéene ji rek moo koy matal wa innama li kulli imri'in ma kenn ku nekk la nga yéene rek moom nga cay am te sëñ bi yéene mooy ñëpp am jàmm ko ñal na yépp am jàmm sëriñ bi nee na mi ngi jaajëfal di sant cant goo xam ni am na fu mu dare amul fu yam jëmale ko ci mboolem ñi nga xam ne teew nañ ci bis bi waaye beral ko sëriñ xaadim kan mii teew ndax moom ak teewaayam jotaay bi bu ñëwoon rekk teew moom dong mel na ni moom moo teew ndax ñoom ñii lii ñu yor nii liggéeyu sëriñ Tuuba la boo xam ne da ko liggéey ba mat sëkk kenn ku nekk ñoom nga am waar ci yor di ko mot bay kon fu ci waay jàpp rek mel na ni Cheikhul Xadim nga jàpp léeg-léeg da ngay dégg ñu naan jël addiya di ko jox sëb sëriñ naa ko mbàkke yow laa yaakaar ëllëg te bu faatoo boo faatoo buñ ko ko waxee mënu ci dara lu dul kañ la ko def loolu waxi dof la waaw di ko def waxi def mooy sëriñ bi nga jël di ko jox addiya xoole woo ko jëmmam waaye jëmmi sëriñ Tuubaa nga koy xoole te nag ku faatu yaa fay dëkk a teew buñ koy sang nga di teew ñuy rob nga ànd ñoom di teew ñu des nga doom nga ñu dem nga des tontu la yam loolu sëriñ Tuubaa rekk moo ko am lii waxuma ko sëriñ Mbay Jaxate moo ko wax kon nag ñoom kenn ku nekk koo ci jàpp rek mel ne ni sëriñ tuuba nga jàpp sëñ bi nee na mi ngi lay sant baax kan di la ñaanal nga yàgg fi lool tànn ko wér liggéey bi nga xam ni yaa ngi koy def ci tuuba kër baaba alima day nee na xamuma lu ci sa waajur wa séntu woon wala lu ngeen ci namoon waaye sikki sàkk wul ni sëriñ tuuba teg na ci loxo ndax liggéey bi àgg na foo xam ni ku gis nen ni nena ji doxin wi rafet na gi sell na taxawaay bi tey mu am na sëkk ndax ab dëkk moom boo demee ba ni boo dugg ca dëkk ba ñu ne lii ñii kër Serigne Touba la ñu ne déedéet ñu ne waaye daara di jàngale njàngalem Serigne Touba am njàngalem euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi jàngal alxuraan ma ca kon ñooña liggéey boobu mat kon sëñ Bécane jërë ngeen jëf sëñ bi nee na xolam sedd na nee na mi ngi leen di ñaanal suñu borom yàggal leen fu baax a baax nii rek la. ki nga xam ni moom la ñuy doyloo di seexul xadim ñun ñii di ko doyloo moom moonu gën na doyloo bu fuuf sëñ tubaa rasul dafa mos a toog ñaari mag ñëw toog ci wetam daal di bóof ci suuf sëñ bi daal di wàcc der bi daal di bóof ci suuf daal ni leen xam ngeen jëf ji ma def lu ko war a la ñooña di ko déedéet mu ni dama bëgg ngeen xam ni nii ngeen ma wóolu ba tax ngeen wàcc ci suuf ni ma wóolu sama bopp moo bopp ku doy la woon boppam la ku wóolu woon boppam la sëñ Tuubaa lii ko yàlla may ko xamal la kon ñii ko fi nekkal di ko liggéeyal lépp lu leen defal ñoom dañ ko war a yokk waaye dara dara waru ci wàññiku kon sëñ bi nee na mi ngi sant bu baax sëñ bi nee na mi ngi sant bu baax waa Touba Kër Baba Alima yëpp ndax moom kat yàlla dogal na ne Kër Bakar la wàcc moo di dalam waaye tund bii dëkk bu ci dem ba dem day mel ni fan dëkk loolu ñun ñii di ànd ak moom mën nañ koo séedee. soxor mu nekk kër Baba Alima wala mu nekk Njaxate wala mu nekk Tuubaa Mbayeen fu mu ci mën di dem day mel ni dëkkam la te loola li ma wax léegi ñoom xoolewul ko jëm waaye ñu ngi koy xoolee jëmmi jëmmi Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sëñ Tuubaa nee na sëñ bi nee na kon yàlla bu yàlla tas ndax it jëmm joot ñu koy xoole lépp loo xam ni nga koy xoole loola mat na xoole ndax lu nekk yëmutul lu mu nekkul fu mu dem yëmutul fu mu demul lu mu wax yëmutul lu waxul lépp loo xam laal na ko yëmutul lu mu laalul moom Cheikhul Khadim suñ borom moo def léppam koy te wàcc bu mukk darajati taalu wa laysa tanxafit wa man xaani min al wara xafti xufit nee na sama daraja day jëm kaw rek képp koo xam ne da ngaa am yéene dëgg màpp ko nag yow yaay wàcc waaye moom wàcc mukk suñ Tuubaa noonu la mel. motax ñom ñi bo leen jappé am nga seigne touba bo leen ñaké tamit ñak nga seigne bi kon na seigne bi néna mi ngi leen sant bu baax seigne bacc mi ngi sant tamit kilifa yi ñi nga xamni bayyi nañ seenu njabot ñuy taxawal liggéey seigne touba bu melni ndax lu melni bu tax bu ko bu ko bu ko ak njabot taxawal te kilifa yi nefa rek mel na ni kon kilifa yombal na kon seigne bi mi ngi leen di sant bu baaxa baax waye di beral ak cant tamit ñi nga xamni ñoy magi dëkk bi ndax wolof da fay wax ni barab bu nekk loo fa gàcce rek moo fay jebbiwaat maanaam mënoo ñëw gàcce fii ak ngeer ak ngi gis dafa géej dafa jebbiwaat wala gàcce fa ngi gis ak saxaw dafa jebbi loolu mënta nekk kon nag barab bu ne la ñuy wax ne loo fa gàcce rek loolu moo fa jebbiwaat kon mel ni ne jotaay bii li nga xam ne loolu la mag ñi def lool la ndaw ñu saxal ba lii am te jotaay bii barab bii ku ko xool xam ne ñi ko def defuñu ko ci tirisé ndax sëñ bi kenn mënu koo tirisé moom kenn mënu koo triser noo ko jàpp rek noonu la mel noonu la mel koo xam noonu la suuboo noonu nga cay tooyee nii ngeen di suuboo moo leen waral lii moo waral jotaay bi fi mu ne jotaay bi lu waay soxor soxor soxor xam ni boo ñëwee xam ne boo nee boo boo jàkkaarloo ñoom rek lu soxol tilim tilim boo xoolee di nga bëgg ndax nii leen yàlla def seen maama ko liggéey lu soxol tilim tilim loo loo mën a mer mën a mer boo nee jàkk seen jëmm yi da ngay bëgg loolu la yàlla dogal kon nag lii liggéey bii sëñ bi nee na bëgg na ci bu baax. nee na xolam set na jëm baax sëñ xaadim sëñ bi nee na na ngeen fi yàgg lool te ànd ko wér nee na jotaay bi yàlla bu mu doon seen mujj jotaay nee na kilifa gi yàlla na ko fi yàlla yàggal ñii ngay àndal di ànd ak waa Touba Kër Baaba Ali ngeen di dóor bis bii nee na yàlla nañ guddal ay junni ay téeméeri téeméeri at yoo xam ne du ngeen xam fu muy yem lépp loo xam tamit su ma ngeen ko ci Touba tax yàlla ngeen dajeeg moom waaye lépp loo xam ne yéen ko cee ragal loola tamit yàlla bu ngeen ca dajeeg moom yàlla na suñu Touba fangu loola nee na njaboot gi tamit yàlla ci yàlla teg loxo taalibe yi nga xam ne ñoo fi nekk li nga yéene ci ñoom ak pas-pas bi nga am ci ñoom yàlla na ko yàlla mottali suñ borom rek moo am dimbal yàlla na suñ borom dimbali sëñ bi nee na na suñ borom dimbali ak taalibe yi ba yoon mi nga bëgg ñu aw fa ñu aw fa ndax jamono jaxasoo na tolluwaay yi bari na ñii riir ci bokkuñ ci mbir mi bari na waaye nag la sëb laaj waxan rek ba mu ñëwee Touba andi fa ay dawkat li ñuy wax ay xaj am ñëw ci moom def délégation ni ko ah ko dëkk bi fan yi bari nay xaj de mu ne waa ñoom dañuy def dara rek lañu la ñuy wër bu deful dara joru ngeen di moytu waaw kon nag noonu la kon nag fi mu toll foofu foofu la kon nag sëñ bi ne na xolam bu ci dara da ngeen nag na ngeen ma jéggal man mii ni wax ab dongo daara laa boo xam ne li may wax li ma ci xam bariwut moom mii mooy jël kàddu ko jox ñu ko rek jox ñu ndigal ñuy wax kon nag bu jubee rek moom la waaye bu dëngee nag ñu jéggal jub gi lañ ci jublu woon yàlla yàlla dogal barab bi doon barab bu tawféex ku fi indi jàngoro yal na ko yàlla saafara ku fi indi ay jàqare yal na ko yàlla dindi ku fi indi ak tiit tamit yal na yàlla dindi tiit ga nawet bi jote na Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe ne ndigal taw bi ubbeeku na yàlla ubbu yàlla lépp mat lu waay bay yal na ko muurloo asalaamualeykum wa rahmatullah. macha allah jërëjëf Oustaz Mor Amine xam naa kon dañuy gàttal foofu rek jox sëriñ bi bu ñu noppee rek daal di wéyal. ci la ñuy jaara jox leen benn information suñu mbokk taalibe Serigne Latir Ndiaye nekk daayira nooru daara ni bu Touba Kër Jobbo dafa wax ni Serigne Gana Messere Mokhtar daf koy may si am ngont tara ki ba ci guddi bu ñu jullee gee ba noppi moo Bayri Jaal bi waxtaan ci muxaddimatul am daa ñoom ñaar ñoo war a ñëw Kër Jobbo alarba muy ginnaaw suba ginnaaw bu ñu sërmalee gee la waxtaan bi tàmbali ba fu mu yem ci guddi gi rek ñu soog ko wàccee kon sëñ Latir nee na mi ngi koy yëgal waa dëkk bi di ko yëgal waa tund bi di ko yëgal mboolem ku ñëw ci gàmmu gi alarba incha allah sëñ Gana Messere Mokhtar ku am pas-pasu bëgg a teewlu waxtaanam mën ngaa dajeeg moom kër Ndiokko incha allahu rabbi di tuub bu baax tey kon bisimilah sëñ bi dafa wax ne mi ngi def ñaan bàyyi ak sëñ Xaadim jotaay bi mu eggale ko incha allah. bismillah ñu teewlu fast addiye Serigne Touba ci jëmmam ju tedd ji lu waaye am mu indi ko ñu jox ko addiye Serigne Touba loolu moom sant nu ko kenn ci mbooloo mi sant nu ko dañ koo baaxoo def ngir siyaare ko sunu sëriñ kon noo ngi sàkku ci mbokk taalibe yi lu waaye am na ko indi ñu siyaare ko sëñ Mbàkke Tuubaa daf ñëw dimbali ndax jàngkat yi ñoo wax ni guddik tey di wuti suba bokk na ci li imaam yi digle mooy ñu ziyaar yi borom xam-xam te yaakaar naa ni ñi fi teew kenn naa tabliwul ni am nañu xam-xam sax xam-xam mais fi ñu bokk kon damay dégg ci nit su baax fekk fu dara ñëw mu def fa dara fekk fu dara nekk mu yokk ko te ku nga demul Touba màggal bii ñëw da nga xam ne joxe addiya am na si kon waxuñu ay ñaar fukk ak fukk ku ci soog kenn soog si di ko ziare boo ko ziare ñaar fukk lu mu néew néew ñu ñu fi teew ñëpp kenn ku ne ñaare ñu ko mën nañu ko def. ku mën lu ëpp nga def ko su ko nga sëñ Xaadim daa toog ba yàgg mu ne ana Mbaye Samb léegi ci jataay bi nga jóg jërëjëf jëf dafa am solo sëriñ bi nu lay siyaare di am mbégte bu baax ci jataay bii nga xam ni teewe nga ko ñun yàgg nañ fii ñëw waaye mos nu fee daje nii nu fi dajee tey kon ak yokk la ci ñoom sa giseen jéeg sëriñ Xaadim yaakaar naa tey jii la ñaareel kere biñ dajee fee nu doon fase ak tey jii li nga doon dund ci moom nag di ko tàqamtiku muy yàlla moom lay dund ci yow di ko tàqamtiku muy yàlla léegi damaa dégg wax bu neex ñu tàll loxoy ne ñaanal loo mu bëgg ba ne loo yëkkati jataay bi sëriñ bi jóg daa am ñu nu bokkaloon jataay bii ñu daan sol seen bugg di sañse di ñëw ci jataay bi saa moom leen te moom a gudd comme ñun jot nañ sunu wàll ba wér nañu ñun séddu nañu ñun ñun reer nañu sañse nañu ñëw nañu toog di déglu si karsi ñoom nag ñoo nga ca barsax ma sàkku bala sëriñ biy jóg ni joxeb dog nu ñaane leen ñoom ñoo ñee nga xam ni ñoo jiitu saa yeesal seen yërmande te jéggal leen biñ demee ba war a jóg dama bàyyi jiili moom sëriñ bi woo ma ñëw mu tegal ma téléphone am ma déglul wax ji ma déglu waaj mu wax a wax ba daane ni ma kii doon waxal man moo faat yàlla mooy bonkal barke borom Tuubaa kii doon waxal man léegi ci ko jub yii moo faat koo koy ñaanal leen njëggal seen digganteeg seen borom ndax ñun yëg nañu suñu bopp ci bisub kër baaba bii ñoom it nañ yëg seen bopp ci bis bii ngeen jëggal ko imaam dafa wax ne ñu def fatiha fukki xul huwa allahu ahad ak benn salaatu ala nabi bu waay man nu yéene leen ko yal na yàlla feesal yërmandeem ci ñoom jéggalaale na bismillah قال آمين, آمين. chef de quartier mu leen di siyaare bu baax ci turu daayira yëpp bu Touba Kër Baba Alima kàddu yi moom xam naa sof lay doon ndax Serigne Cheikh ak Baye Bàcc Cissé ak jawriñ sëñ Abdou Gouma yi ak sëñ As ñu ngi ñoom ñoo ñëwoon ci Serigne bi doon sàkku ndigal ngeen taxawal bés bi ndax tëral nañ ko ñaari at ci ndigalam ginnaaw ko fii jamono ji lu fi jaaroon jaar fi muy Covid 19 ni ñu ko doon waxee kon at mi maanaam mille 2019 lañ mu doon mujjoon a def gàmmu gi 2020 defuñu ko 2021 defuñu ko waaye lu ci nekk ñàkk gaa def ñëw nañ ba ci sëriñ bi mu jox ñu ndigal nam nu joxe woon ndigal ñu jëfee ko noonu bii bi ñu ñëwee ci moom la mu gën a neex ca ndigal la mooy dañoo wax ni bu melul ni ya fi daan jaar. manam na leen taxu si kaddu googu mooy kaddu ndigal bi te ñun yëg nañ ni maanaam moo dàq fi daan jàpp ci ci anam bu nekk kon loolu ñu ngi ciy sant beneen bi ci des nii mu demee sëñ Mbàkke toog fekk ko sëñ Xaadim wax dëgg yàlla loolu sant la Baye Cheikh ñun amuñu seen pay dañ leen di ñaanal ngeen yàgg fi te wér kàddu yi cant ci dëkk bi yëpp lañ koy jëmale ndax gàmmu gi nii mu mel ren ñun yëg nañ nii bokkul ak yi daan organisé bokkul ci pas-pas yi bokkul ci jëf yi bokkul ci doxalin yi kon loolu ak cant la te lépp nag mu ngi bàyyi ko ci sëñ Assane rot ci ñun kon moom dañ koy ñaaral fu nekk boo xoolee daanaka mën naa ne gàmmu gi lépp ay jaayante la mbokki taalibe yi ku ci nekk la nga mën def nga ko ba ci tuut tànk yii nga xamante ni daanaka booy xool bu dee ci wàll poos amaguñ ci doole da ngay gis sax ku yor ñaar fukkam ñëw jox la ko ngir dugal ko ci gàmmu gi gis koo xam ne yorul ñaar fukk waaye abtal na ab bant mu yëkkati ko liggéey la ko Sëriñ Tuubaa ci gàmmu gi kon loolu ak cant la matériel yi fi nekk yëpp daanaka dañu cee jàppale loolu nag ni ñu ko daan seedeele si bi ngir buy ñaan mu fasaale ñooñu nga xamante ni bii dañuy jàppale ci liggéey bi moo tax Baye Cheikh Gaye Italie yàlla dafa dogal gàmm gi gën ko fa fekk lool mu ngi nii toog suñu biir te ginnaaw yàlla nag bu gàmm gi demee ba egsi fii suñu diggante seen asan ci Baye Cheikh Gaye Italie la ko yàlla jaarale ndax moo nekkoon Thiès dafa yëngatu ba yàlla boole ko ak seen asan kóllëre mu fasanteeg moom ba gàmmu tamxarit gii Baye Cheikh dox ay jéego ba sëñ Assane ñëw ci yaakaar naa ba ci sëñ Assane tegee ab tànkam ak fii ñu toog ñaari at la ko sëñ Assane musa manqué ak ren ak ñaar ak yi ñu deful mais bu dee yoo xam ne dañ ko organiser ñaar la ñu xam benn bi Màkka la demoon bu ci des Maroc la nekkoon yaakaar naa ak bu ren bii waaw kay kon mu ngo mu ngi nii toog kon day mel ni Baye Cheikh Gueye ñu ngi koy delloo jukkal ci loolu xamal ko ne ko ab liggéeyam yàlla def na ci barke. ndax it nag yokk gi gis nañ ko ci anam bu nekk jëmm yëpp kon nag xam nga ni yàlla suñu borom dogal na parce que li ñuy jàppee ak yokku tamit jàppee ko ak ndax xëy am la ñuy jàppee ak yokkute ku am alal te loolu cër bu yàlla séddale ku sëb cër nekk bala ngaa faax di nga ko jot waaye yokku ci ruux yokku ci tawfiq yokk ci gëm yàlla yokk ci nangul Serigne Touba yokk ci fóot sa xol yaakaar naa ne man loolu man moom laa gën a jàppe yokkute te mooy yokkute bi ma gënal te gis naa ni sëñ Assane def na ko ci ñoom kon noo koy sant baax di ko ñaanal di jéglu bu baax ci kàddu yi waxtu bee guddi waaye kon dina gën a yaatu ñu ngi jaajëfal suñu mag yëpp nag ñu ngi nii toog kër baaba moom ni ngeen ko xamee boo fi nekk naan murit ak tijaan sax da ngay juum da ngay tànt bi yaakaar naa suñu mag yu baax yi ngay jàkkaaral yëpp ay taalibe Cheikh lañu ñu ngi nii toog yor seen i kurus te yàlla xam na ni bés bi ñoom ñoom ñoo ko ànd A ba ci jëf ci boos jëf ci doole ba ci ñëw toog ci tànt bi kon loolu sëriñ bi ñu ngi la koy seedeel Kër Baaba moom li sëriñ Assane doon liggéey yàlla defal na ko ci tawféex ndax da nga dem ci dëkk Tijaane xiiru murid mu murid yi xiiru Tijaane loolu amul fii amul fii benn ya. yoon man miy wax ak sama ndey sama baay samay mag samay rakk ñoom ñëpp ay tijaan la te maa ngi ñoom ñoo bokk génn kër gu ni yeewoo ya, te alhamdulilah sant rek yàlla ya dogal na sama mak ci boppam di ma bokk di ma topp ci moom mooy président daayiratul mustarsidina wal mustarsidaat bu kër baaba bii mu ngi nee toog Babacar Diouf waaye sant nan nag bu baax ku santul na xaram sant nan bu baax kër baaba moom li fi yàlla def yàlla na gën a jëm kanam yàlla bu ci seetaan amu yoon jërë ngeen ñu ngi tudd baax tey jégalu kon waaw ñuy jaajëfal sëñ Magaye bu baax waaye day mel ni li mu wax lu am solo la ndax suñu jëwriñ ji toog muy Baye Salihu dem moom xam na ñun xam na lu ndax liggéey bi ci këram la soqi ko ginnaaw bu mu ci jiitee di ci doxal ba yàlla dogal ak manam mayatu ko ko mu yëkkati ko jëbbal nu ko luñ ci dox moom lañ koy doxal luñ ci wax moom lañ koy waxal Baye yow moom dañ lay ñaanal ndax xam na ni bu demee ba ñi ne ci Serigne Touba yow yaa tax li nga wax ci kàddu xam nañ ko dégg nañ ko yow kenn ànd ak yow di tiit mbaa loolu moom yàlla xam na ko kon booy boo nga xam ne fu mu toll yaa nekk ci suñu kanam yaa nekk suñu ginnaaw yaa nekk suñu diyoor yaa nekk suñu loolu moom moom ñuy doxee saa su ne ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi téwéer di ñaanal sa njaboot yëpp waaw wa zakir wa inna zikra tanfa'ul mu'minin maa njaay ñu ngi lay jaajëfal bu baax kon ñu ngi tuubaat tey jégalu bu baax xam naa di jox imaam bu wàccee ñu jox bàyyi laay bu leen jox bàyyi laay mu dalal bu noppee jox imaam sëñ Mbay Samb te jox sëriñ am naa ñu jégalu jël ci ñaari fànn benn bi mooy chef de quartier benn bi mooy kàddu dëkk bi nga xam ne moom la unif ñu santaat yàlla bu baax julli ci sangub sangi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu kilifa yu tedd yi toog sëriñ Mohamed Mbacke dem na sangu <coughs> wante ñu nuyuwaat ko nuyu sëriñ Xaadim Kan mi toog ak ñi mu àndal jóge Cees yëpp nuyu imam yëkkati kàddu ci turu chef de quartier ak mbooloom dëkk bi yëpp sëriñ Xaadim ñu ngi lay ziyaara di ñaan nga numul ñu suñu ziyaara mbooloo mi fi teew yëpp nga xam ni jëmm yi fi nekk yëpp kenn ku ci nekk am nga yéene fekk la yow fi nga toog mu jox la loxo wante dañu wax ni li ëpp solo ci nit mooy xol bu leer te sell nga yéene ca ka ngay ziar sa ziar te ñi fi teew ñëpp la ñu ëmb mooy ziar la yàlla yàlla nu mu ñu ne fii nga toog moo fi daan yàlla ko yàlla gën a yokk wér da ko ñaanal mu yéene yàlla yàlla mottali dama koy faral di wax ne ko. li nga ñuy yéene te mënoo ko yàlla mi ko man yàlla ñu ko defal ndax nit dana yéene lu mu waaye yàlla moom lépp mën na Ablaye wax ni mi ngi sant yàlla bu baax ci teew gi nga xam ne nitu yàlla yi ñu koy wat si ci dëkk bi di ko fi teew si rawatina sëriñ Assane ak sëriñam bu baax bi jóge fii léegi muy Serigne Mouhamed Mbacke muy nit koo xam ne kuy wër nit ku yiw ba teg ko bët da xam ne gis naa ku yiw tey suñu Cheikh Ahmed Tidiane suñu sëriñ dañu ko laaj ni ko ndax sëriñ Babacar Si ragal na yàlla mu ne ah loolu de wóoruma ndax ragal yàlla nit ak nit a koy xamal boppam waaye xam naa ku yiw la waaye sëñ Mouhamed Mbacke ku ko gis xam ne ku yiw yàlla yàlla sàmm sëriñ Xaadim ñëw nga sa dëkk sa dëkk waajur boo xam ni li nu fi am ci ay soppe moo ëpp li nu fi am ci ay taalibe bi dëkk bi ñëpp ko xam ñëpp ko bàyyi xel ngir yàlla ak liggéeyam ci lislaam ngir yàlla ak orientation bi nga xam ne ko orienté ak nit yëpp imam Alioune Diop daal la ko faral di wax chef de carré di ko wax mooy dimbali na l'islam yi ci dëkk yi yàlla ko yàlla jàppale laay ne xolam seddati na ci daayira bii nga xam ne at mu jot ñu taxawal lii ba gàllankoor ñu gàllankoor boobu yàlla tegg ko ñu taxawalaat ko yàlla yàlla sàmm leen aar leen ba lii bu ma dakk ci mukk di ñaanal sëriñ bi nag bu ne ngeen siy déwénee yàlla na ko yàlla jox ko wér bu mu fi ndax démb bi say gerte jox maa si moom wante yàlla xam na ni masamba mi bi ma ñëwee ko boo ko ne sëriñ bi nuyu na leen tegu ma ca beneen baat waaye man wóor na ma ni ki ma jàkkaarloo démb ak kàllaangam gi mu yor day yeble kàddu yam doon joxanteeg man suñu xaalis mii la woo ak Baye Cheikh Tour mii mu yor sañ ma mu yàlla xam na ko te nit dañ doon woon ngàntam waaye ku xam sëriñ bi xam ne jàppaloo leen bés bi ca teewu ci fa mu nekk xolam ak yéenam yëpp ñu ci biir baas bi ñaanam ak kursam ñu ci biir baas bi loolu ku ko xam-xam ko ci moom ndax bëgg njabootam ngir fonk ko la rek kon sëriñ bi sa teewaay bii tey jii yàlla nañ ci am ndam loo xam ne mosuñu ko am ci benn daje fii ci dëkk bi ndax rek olof dafa ne daje ko baara mooy baara ragalul yar ngoon yëpp ngooloo da ngaa xamul la ndax lu xew ci la ko def kon kan Gallo mu nga lay ziare ci turu chef de quartier turu dëkk bi yëpp di la ñaanal yàlla nga yàgg di taataan suñu nopp yi nag di la déglu ci orientation yi nga xam moom sa waajur doon def ci dëkk bii nga gën ñoo orienté gën ñoo tegaat ci yoon ñu ngi ziar bu baax a baax beneen bi ci mooy sëriñ bi moom wax démb ni ma boo demee nag ma santal waa Kapaam Alima yëpp ndax it man damay wax ne teraange ji may yëkkati li mu tuuti tuuti su ma demee damay wax sëriñ bi mooy teraange ji kër baam yëpp ko def te suñu borom bala ma koy yàllaa fay yàlla su ma nawee fay ci lu fay julli yàlla moom ma fay ba moom daf jàpp na ni teraange ji kër baam ko def te teraange ji kër baam ko def. kon su ma nee nag ma santal dëkk bi góor ak jigéen mag ak ndaw su ma ñëwee gër rajo bi dinaa leen wax ne sëriñ bi ne sant na leen ci teraanga mu jot ngeen ko fi indi ko barkeeloo ko ci reer tam xarit bi ci këram yàlla yàlla dañ leen a jàppale yàlla bàyyi leen ak seenom xel yokk seen wërsëg ci barke yoon bi ngi ziar bu a di gën a suñu kóllëre ak suñu bopp yii wax naa ko danaa ko waxaat man su ma jotee si sëriñ ba bi ba am ak moom kóllëre am ak moom accès yàlla ak daayira bi tax bu doon daayira bi du ma xam sëriñ bi sëriñ bi ñëw kër Baba laa ko gisee sopp ko bëgg ko topp ko nag kon su ma ci amee accès boobu maa ngi leen di sant ci ndax bu doon yéen du ma ko am yàlla yàlla barkeel laa yi ngay xolam sedd na bu yi waaye ne xolam sedd ni la xol dëkk bi yëpp seddee sëriñ bi yow la ñu ko a déglu xam naa am na ñoo xam sax ñu mën a bay sànq li muy wax bari na waaye dara su ma bëggee waxal sama bopp waxal laay faw kàddu a diire tudd ngeen baal ñu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 asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñi ngi nuyu sang yu tedd yi fi jiital ci nuyoo bi seen kan di ko nuyu di ko masawu coono di ko ndokkeel di ko ziyaara si guddi gu duku gu gi tabarakallahu di nuyu sang yu tedd yi mu àndal yep ba cheikh tun ak imam talakey ko defee ñu yóbbaale mbokk yi ñu àndal yépp di nuyu chef de quartier di nuyu sang yépp ah mu nekk guddi goo ni tabaarakallaahu bu yàlla barkeelal la ci yëngatu yiw kon lu ñu ci yëngatu ci yiw yàlla nañu ko yàlla barkeelal sàkku ngëneel nag weesuwul tabaarakallaahu ci teew ci jataay bi ndax guddi gi dundal ko dafa nekk sunna nekk lu ñu sopp ndax ngëneel yi ci daje ak xew-xew yi ci am ci wax na ko suñ Mbay Sàmb wax na ko te mooy li ci bi wax wala li borom xam-xam yi wax bokk na ci li ñu sopp ci bis bi ziyaara borom xam-xam ziyaara borom xam-xam nag weesuwul jataayu ak moom di taatan ay kàddoom yu la delloowaat ci yàlla kon loolu daanaka ku fi jógee jëratul ngay wëri naan ah ma dem Tiwaawan wala ma dem Touba wala ma dem feneen ku nekk fa nga nekk daje nga faak ku yàlla def ak liif ci boppam koo xam ni boo ci jubloo ziyaar yàlla mën na la koo nangul te bu la ko yàlla nangulee mu nekk jaamu yàlla bu rëy kon suñu jëmm jetaay tay bii yal na ko yàlla dugal foofa te nangul ko ñu dellu sant yàlla ci bi mu ñu mayee ñu teewaat ci bés bii yàlla bu mu nekk suñu mujj jotaay ndax mbokk yi ku ne xam na ni jotaay bi am na jeexital bu muy def ci dëkk bi ci wàllu yokkute ba ci wax na ko sànq maanaam ñi nga xam ni àdduna daf leen a yitteel fa ñuy gisee yokkute kon ci dëkkuwaay ci col ci am-am mu nekk millionnaire wala nekk milliardaire et pourtant yàlla suñu borom ba muy ba muy wax ci li ñu fi andi ak bu ñu jógee fii lañuy ñuy xaar ëllëg xam na lu tax ñu wàcc. te bu ñu fi jógee am na lu ñu suñu borom di séentoo pour ñu àndaale te lu ñu suñu borom di séentoo ñu àndaale ko ëllëg yàlla tudd ci am-am ku ñëw ëllëg am ci wàllu alal ji yàlla tudd lool man jaa abe xasana la wax man jaa abe xasanati kon yaakaar naa yiw woowu nga xam ni ginnaaw bi mu waxee ne wa ma xalaqtul jinna wal insa bu liya'budun kon am na lu ñu fi bàyyi ba pare mu waxaat ni man jaa bi xasana kon am na lu ñuy xaar ëllëg am na lu ñu suñu boroom di séentoo kon suñu yokkute moom ak suñu réussite foofa la koy séentoo loolu nag kenn ku nekk yaa koy sonne sa bopp yaa fus du ko maye tëdd nelaw du ko may kon ñu gën a yokk suñu góorgóorlu ci suñu wàllu yàlla ñu gën a yokk suñu góor góorgóorlu ci suñu wàllu tarbiya dañu toll jamono boo xam ni duma ni ñi nga xam ni dañu bokk daaira sellal nañ 100 pour cent ba erreur du am waaye foo dégg erreur yi ëpp ku jokkul fenn la ku jokkul fenn nag seytaane moom ñëw ji ma jokk ci yow wala mu jokk loola ci moom kon nañuy góorgóorlu ci suñu wàllu tarbiya comme ni ma ko waxee sànq ci ngoon bi ñuy daj kaamil bi di ut fu ñu mën a rawalee suñu pas-pas ca bu ñu ca jokkee nag ñu gëm ko tey sellal dana tax nga bokk ci ña nga xam ne man jaa bi xasana bi yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom loolu nag góorgóorlu moo koy maye ak pas-pas ak taxawaay waaye tam mu bañ nekk ci ngistal bañ nekk ci xew na samay moroom koy def naa ko def déedéet boobu amul solo ndax suñu maam ci Ahmadu Bamba ku nekk xam na taxawaayam ku nekk xam na kenn musul dox lu niroo ngistal wala ay caaxaan ci kanamam mu bàyyi ko te wala mu noppi te mukk ku doxale nu dëppuwul ak taalibe gi mu soxla daf lay dénoncé ci sensé ba ñu xam ni li ko tax a kon lamu wote woote ak la mu sellal jëm ci suñu borom subhanahu wa taala kon kenn ku nekk muy man muy keneen foo mën nekk nañu sellal di góorgóorlu danañu dimbali suñu diggante ak suñu borom ko defee lool rek la doon ubbee tabaarakallahu bi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ bi ñu ngi lay masawu coono di la bu baax di sàkk nga jotal la ñu nuyoo sëñ bi tabaarakallahu sànq sëñ bàcc dañuy bokk na ci sëñ bi Moussa Tardé muy tey am ko ko ni mu ngi nii toog sànq avant may ñëw am xale bu ma ni sëñ Assane ñëwul doomam moo ñëw sama yaay nii ah ku dem ba ku la mën a demal tabaarakallaahu wàcc nga waaye tabaarakallaahu bu fi doxe dootul teew di toog ca xam di ñaan du tee tabaarakallaahu jamono bu ñëw day gën a yéwén kon yaakaar naa yéwén na te tàmbaleegul te bu tàmbalee dañu xam ne yéwén na yal na ko yàlla may mu tàmbale eggale ñu ngi balaax ñëpp di leen balaax yàlla boole ñu ci bépp asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa sëriñ bi léegi dafa am luñ ko déy bu jox lu ci ndigal ndax sëñ Fallou Sow mee toog nuyoo na léegi fii ak sëriñ bi yàlla dogal wérul am ay garab yu muy jëfandikoo hôpital di ko bindal ordonnance weer bu jot mu war koo jënd te wax dëgg yàlla ko xam xam ni xëyul gontul mu sukk fii ni ma daal bu ma sañoon mbooloo mi ma ci waaye mën a dimbalee nga dimbalee ma ko te yàlla tax ma daal di koy déy sëriñ bi sëriñ ni ma kon na nga jottali loolu lu waaye am te man ko koo dimbalee ñu dajale ko fii jox ko sëñ Fallou Sow mais ndax loolu moo taxaat ñu teg ci lii ñu ci teg ci kàddu mu dëppoo ak ndigalu sëriñ bi lu ci waaye am bu mu ko xeeb bu ko indee rek incha allah ñu dajale ko fii nu mu toll ñu ko sëñ Fallou Sow mu dimbali ko ko ci ordonnance am wax dëgg yàlla dinañ ko koy faral di defal léeg-léeg ci ay jotaay ndax nak mbokum julit la mbokum talibé la ta amul lul mbokk julitam do yàlla defon ci mom ak reuy ak bis amana li bu ko man waye nak bu sañon li ko top àqalikoo ak mom ba faw assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen balu ak di leen bal ak yàlla nu yàlla bo boole jéggal mu mel ni benn bal nga jam ci ñaari picc moo leen dal yéen waa Kër Baba tey jii ku ne ci tànt bi neel alhamdulillahi rabbil alamin bi ngeen ñëwee waxtaan ak sëriñ bi yéen waa Touba Kër Baba ci bis bii nga xam ni moom ngeen doon bokk ak sëriñ bi sëriñ bi jox leen ci ndigal tey jii bi nga xamee ni ñëwul moom sëriñ bi ci waxee danoo booleeg doomam wëlbatiku ni imam Baye Talla Gueye na nga ànd ci jataay bi damay won waa kër baaba ni leen fa ma leen teg teguma fa kenn Baye Talla naa waxtaane guddi ba mu jeex te du ko bokk ak kenn sëriñ bi ni ko boo demee nanga nga tàmbali sëriñ xaadim sëriñ xaadim mottali nee na fu mu leen teg daal la leen bëgg a wax ni leen tegu fa kenn li ngeen ko jariñ li ngeen ko jariñ jaral ko ko moom sëriñ bi kenn jëralu ko kon mu ngi leen di ñaanal yéen waa Touba Kër Baba lu ngeen sumbati yàlla ko yàlla àggale te rafet nañ ci lool ndax bi ñuy ñëw bi mu na boolee doomam ji ak imaamam ñu tëj jumaa ja noddukat baa ngi nii sanwet seexam baa ngi nii toog Cheikh Makhtar mu boole noonu njabootu boppam ñoo nga ne toog Yakumba Amar ànd ak soxna Silla kon man naa ni nasru ñu ñëw nañu kon daa guddi te bëggu leen a dégg lu dul sëriñ bi kon li ñu def mooy dañuy daal di wàcce sunu kàddu jox baytaala waaye na ngeen xam ne daal imam sëriñ baa ngi lay nuyu borom dëkk bi sëriñ baa ngi lay nuyu mbay sàmb mbuub li la sëriñ bi waxoon démb démb ak tey daa jege te lam la waxoon fàttewoo ko te lam la wax gëm na ko te gëm nga ko kon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu am joxoon bàyyi taala kàddu bisimilah ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بكي جلدي بكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نولين دنيو نولين دي سيارة مباخ دينين لوكيل تبو ديكو تدقي ديكو ديك يوم عشورة mu mel ne laylatul ashura di leen sant baax di ñaan suñu borom fekke dañu ko diwén jataay bi ñu teew suñu borom def ko muy jataay bu ne seede yowal xiyaam ci dajeb ngërëmam suñu borom képp ku wérante ak jàngoro ju mën a doon yal na ko seen borom saafara kàddu gi mënoon naa doon genn rek suñu xaaj bi mënoon na koy gën ndax waxtu wii daa ni xaw na jate ñeenti waxtu mi ngi mi ngi yëglu yaakaar naa dugg si na kàddu sëriñ bi yëpp moo dana ko leeral incha waaye di ñaan rek suñu borom daje yéen fii daje. ñu ginnaaw bu nuyoo imaam imaam dëkk bi day nuyu di ko jox wàccuwaay bu baax a baax ak ki nga xam ne mooy jiite dëkk bi muy chef de village bi di leen nuyu jox seen wàcc di ñaan yàlla yàgg leen ci seen toogaay yi suñu dëgëral leen ko te téye ko bu baax a baax bis dafay am njariñ lu ko may njëriñ mooy la mu tombeel ñu ngi ci atum jullit 1444 tey jii suba la benn fan ci at mi ndax muharram ci la ñu tey tey ci bëccëg bii ñuy weesu mooy juróom-ñeenteelu fan bi waaye guddi gi mooy fukkeelu guddi gi kon suba la fukkeelu fan moo tax ñu tudd ko a sora a mooy fukkeel ba xasra bi jël jàng rek muy asura waaye wàññi bi ci at yi suba day tàmbali wala guddik tey ci la atum jullit di tàmbali mu ngi mel ni 31 décembre ci guddi ñu ni suba la premier janvier loolu lu ab jullit war di xam la ndax dañoo topp weeri nasaraan yi xam ko bu baax a baax di xam seen lim ak seen waxtu di ci date suñuy jamono waaye ñun ci suñu bopp date ko ci weer wi nga xam ne mooy weeru lislaam muy muharram muharram mooy firi lu weer wu ñu ora ormal muharram nag safar moo ci topp fii ñu toll guddi gi ak suñu diggante guddi màggal 38 sur rek moo ci dox kon yàlla na ko yàlla jàmm guddi kon dana mat dana mat dana am solo te la ko amal solo mooy la ma tombé ni ma ko waxee léegi mbir yu bare bari Sëñ Tuubaa jàngale na ko ci ak yi ci xew xewee ci anbiya yi waaye xewee ci sëti yonente yi alayhi salaatu alayhi salaatu wasalaam ci yu bare bari ci taarixu adduna boo ko doon waxtaane xëy na suñu xaalis dana ci dugg kon rëyaayu bis bi ak foraayu bis bi moo tax mu bari njëriñ lool bis dana layoo ak borom suñu sàkk day woy na ngir waaju mooy yàlla ci bis bu mag mbaa weeru koor say cër danañ ko làggal kon bokk ci guddi yi nga xam ni wóoru la ndax déwén danga ko fekkeem ndéet nga war ko dundal dundal guddi nag di ko Sëñ bi sikri rabbika tusbix ka yawmin waladat ko ku dundale guddi te dundale ko ci sa borom ci bàkkaar mel ni bis bi nga xam ne sa sa way jur téere la jure loolu suñu borom dana ko defal ak jaam dundal guddi nga nekk da jàgg nekk sept heures de matin ba sept heures ci suba nga fanaane ko naafila wala sa fanaane ko wir ñaar rakk yi ci rek te dëggu ca wala tudd yàlla benn yoon doonte dëgg la ci yow sax mel nga ni dundal nga guddi googu dina nangu dik ashura ak na ci borom xam-xam yi liggéey yëpp umpul kenn kon ñu góorgóorlu ci farlu bu baax ah, li si mbàcc wax léegi ci yokkute ci wàllu ruux yokkute ci wàllu ngëm-ngëm mooy li am solo li ki dana la ëppale dara ci àdduna ëppale la lu bari ba nga di ko ñëwee te fekk yaa ci yàlla soppi ruux yi ak arwaaxu junóobin mu jannda fa ma taarafa minha tanakarat kon ruux yi ci aalamul arwaax ca la leen suñu borom sàkkal xont bi nga xam ne ca nañu dunde ci àdduna ruux li koy dundal muy yëg yëg borom ni mel ni làmp yi di tàkk yëg courant bi moo ko tax di tàkk yëpp li koy def ci nit mooy baril tudd yàlla lu bari di baril di xalaat tëraayu bàmmeel li nga xam ñoom lañ doon ñaanal léegi te ñu nekk ca dëkk boobee muy bërëb bu mat a bàyyi xel suñ tubaa wax na te ni dara mënu faa jëriñ jëmm lu dul ak njub wallahi laysa yanfau shaxsu xada inda uluri ramshihi xayrul ula dafa mel ni ku yëkkati loxoom daal di giñ ci yàlla ni daal di waat naa ci yàlla ni jëmm jën tëral ci kuusu bàmmeel dara mënu ko faa jëriñ lu ak njub njub nag suñ tubaab bi muy taarif tasawur di saxaar di sóoraale ndaw ñi te yaakaar ne tànt bi ndaw ñee ci ëpp ndaw ñi tax suñ bi jël xalimaam tàmbalee ci yaa ayyuha shibyaanu laa tastaxilu anil hudaa yéen ndaw ñi rek bu leen soxla dul ak jub door saa teg xam-xam wa bil ulumi istaqilu xam na ne njub moo mën a professé jëmm ba du jëm ci ab safar ndax nit ki bis bi mu juddoo wala bi mu juddoogul sax wala ngeen baal ma bi góor di jóg di bëgg jigéen bëgg ko soxna ngir bëgg seen diggante dagan seytaane bis boobu da jóg wala du jiitu ngir ko ni sëy bii bu amee doom yi ci am kum bu nu baax mukk nga denc ko soxna seen ñaari xol dëppoo ngeen bëggante ngeen di ànd ak xañ leen tur yàlla xañ leen yëg ci yàlla rapport bu ngeen am seytaane moo ko bokk yéen moom la alxuraan di ñu wastafsis man istata'ta minhum bi sawtika wajlib alayhim bi qaydika wa rijlika wa sharikahum fil amwali wal awladi wa aidhum ila axiri al ayat wax wu nit ki tibb aw ñam di lekk te tuddul yàlla seytaane day dugal loxoom ci ndab bi wee yi di génne ab likit di ko def ci biir bu ko defee nit ki di lekkaale likit bi jóge ci baarami seytaane yi loola mooy muur xol ba ba bu doon tudd yàlla ay junni junni yoon di ko mën a yëkk moo tax xol yi léegi soxal bari ci xol yi léegi bëgg àdduna bari ci làmmiñ yi saaga ak diw ak yàqante bari ci sëri yi mooy yàlla di ci bari ñàkk tudd gi ñàkk tudd yàlla te di ko teewlu mooy indi sobi sus njub googu nag suñu yàlla dimbale ay waajur yu mag yu xam yoon dimbale la say xumurab yi mooy ku ku mën a yar te yar ndax sëriñ am solo la suñu saaka ci ay woyam dafa ni wa man lam yàllal seexal iblisu seexuhu ku amul sëriñ bu ko gindi jëme ko ci li ko yar na ko wóor ni iblis mooy sëriñam teg ca ni ku seytaane yor say mbir te tuuboo fa yandamu ulamaa yi mu xàqi xoone yi dañuy wax ni nit ki waxtu juddee ni tut nekk ab liir am na ñu ko fi reer leer xol bi ko yàlla jox fekk na amagul benn taas bu ci nekk waaye xol bi day def tupp tupp yu ñuul ak tupp tupp yu weex su fekkee ne ay waajuram am nañu ak dogu xam ni kat seen doom ji dana lay moom ëllëg yomal xiyaam alxuraan moo ñu ko wax doom di nga bëgg ci àdduna ba doo bëgg dara laal waaye yomal xiyaam dana ne tëdd nga fëx daw maru min wa ummihi wa wa wa fii fii rek ci àdduna la toogandoo nii de waaye yow ma xëy ku gis sa xarit daw ku gis sa doom daw ku gis sa mbokk daw ku gis sa jëkkër daw ku gis sa jabar daw ndax ragal amee naa ko àq joo xam ne fii dana ma ko fay te amalu fay kon nag loolu bis ya bis la yu mat a waajal ku koy waajal nag ci sa biir di ko waajal ci sa jot di ko waajal ci jamono bi nga amee te bañ a xaar bay wérat bi baa ngi ñàkk jot di door a fàtte ko yàlla suñu borom doo koy fàttaliku ci jamono ba ngay man mu dina sax ci jamono ba nga xam ne yaa ngi ci xat kon njub googu ñu wax léegi di ko yokk jamono bu ne te dara mënu ko yokk lu may ngëm ngëm dara mënu ko yokk moom it lu may ixlaas mooy sellal laaj nañ ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala sallallahu alayhi wa sallam na ko Seydina Jibril lan mooy ixlaas mu fa sirru la bi suñu borom def ci xolub jàmm jàmm bu ko yàlla defal la war ngaa sant àdduna yomb na misaal lool ci fànn yooyu ndax jamono dafa naqaree waxe ci fu mu toll ndax dafa mel ni la suñu borom duñ duñ ci alxuraan xatama lahu ala qulubihim yàlla dafa kas ci xol yi mel ni ngëm nekkatu ci. loolu dafa mel ni jàngoro ji ndax ñoo war na ñu mbir ci bëgg àdduna lool bët ku yëkk ba doo ko boo ko laabee daj mu jaral la jaral la waaye suñu borom dina jaral sax dagg say dana jëli ñaar rek kon fekkoon nu ñu mën a peese ci bascule la waaye lool ruux bu fekkee dafa fipp ni ki moo ko waxee tomb bi nga xam ne tukki tukki yu yi nga xam nekk na ci niir bi door a judd ñu noddu liqaam tifli ci nopp leer ga day sar dugg ci moom ay wuy juróom di dundalu lew alal ju lew jooju day dugg ci yaram bu màggee ñu ko alxuraan tuddloo ko yàlla tukki tukki yu dañuy gën a renforcé wu di gën a dëgër di gën a fees tukki tukki yu ñun di gën a effacé wu tukki tukki fii ñun mooy cër seytaane ci gis day mujj nga ni diw nit yàlla diw ko baax na di moo day mujj am yëg-yëg ngëmam di yokk pas-pasam ci yàlla di yokk bëggam ci yàlla di yokk ba yéem yeneen nit ñi te moo ne kenn ki rek la kenn ki nga xam ne moom tuddaluñ ko yàlla wala jàngaluñ ko alxuraan tupp tupp yu ñu ni ci xol di gën a renforcé wu fàtte gi fàtte yàlla di dunde aduna rek télé yi ak écran yi yu bari ak jota yu bari di gëna a bànneexal xolam di gëna a fàtte yàlla tukki-tukki yu ñuul yi di gëna fess xol ba day ji tukki-tukki yu ñuul yu wéxé day effacé wu tukki-tukki yu ñuul moy walu wàllu seytaane ku mel nonu loo ko wax du saga ak diw du ko neex loo ko wax ne dul bëgg aduna ak ñar njariñam du ko neex loo ko def lo lu dul bànneexu aduna du ko neex waaye bu dé ci yàlla da ci tayal loolu ki nga xam ne xol bi daa fees dell ak leer mooy ki saxoo tudd yàlla ba agsi ci magam ak ki nga xam ne xol bi daa lundam crise ñoom ñaar ñu daje ñaar nit dong la alxuraan foofu lay attee chima um fi wujuhin min asafsir sin man nag kenn ku nekk day nekk ci seen xarala bi loolu réalité bi digg digg yow ma xiyam lay feeñ yow ma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuhun bis penc nit danañu tëll ndax waxtu wi nañu jéggi siraat ci guddi gi weesu siraat day lëndëm lëndëm boo xam ne boo ko boo ko laabee daj ko te ñun ñëpp amul sëriñ amul taalib ñëpp ko daje dafa dafa jéggi lenn dong nga fay mën a musal nit mooy xol bi leer xol bi day leer ba jëbi day mel ni lampe projecteur man saa yi ma gisee saxaar buy daw guddi tere bi ni laaj bi nekk ci kaw sama xel day dem ci jéggi saraat ëllëg ñii bari buñ bari woon tudd yàlla ci àdduna njub bu nekkee woon baax bu nekk woon tudd yàlla bu bari bu nekkee woon jàng alxuraan bi bari fonkoon tur yàlla bu nekkee woon loolu day nekk leer bu nit nit seen bàmmeel day leer bu bëgg na leer jant bi ñu tiim ndax jant bi ci àdduna nii la waaye bu ëllëgee leer gi nekk leerum nëb bi mooy gën leer jant bi bu ëllëgee su keroogee booy jigi siraat li na wër lépp day leer naññi ñi yàlla nar yë yërëm dañu ànd ak yow ci dëgg sa leer boobu ca la ñuy leeru kon leer mat na fagu lool kenn ku ne war na góorgóorlu ci jur yàlla am ñoo xam ni seen leer day feebal ba nga xam ni daanaka bu ne xay ay comme ay mel xat rek bu ne mel xat ñun ñu tuut daan dox tuuti mu fayaat ak ñoo xam ne amul dara ci ak leeral ay nit dong lañu ñii bañ dañuy teg seen benn tànk ci safara ci siraat daal di daanu ci safara ñu ajaat leen ci kaw ñetti junniy at lañ koy jéggi ëllëg yéeg bi juni at la amul góor amul jigéen amul ndaw amul ñëpp ko ñëpp bis boobu ñuy xaar ndox bi ci kaw junniy at la wàcc bi junniy at waaye ñii seen leeru ngëm dolli ko ngëm gi masamba wax léegi dolli ko ngëm dolli ko ruubu ruubu ñoo xam ne kan barkal xaatif bu dañuy mel ni merax fiw rek yàlla ah diw ñu ah, am ñoo xam ne ñetti junniy at dana ko def di yéeg di daanu daanaka safara duñ ko àggale ndax lakk gu leen safara di lakk ñoo xam ne dañu mujj sonn safara mooy seen dëkk waaye ëllëg laaj nañu Shafii ndax ab jullit dana dem safara mu ne ah waaw ndax ab yéefar dana dem àjjana mu ne ah wóoruma day ab yéefar dana dem àjjana mu déet waaye ab jullit dana dem safara kon du jaag nag jullit ñu daje kenn dafa dem safara du noonu de rubbama yawaddu llaziina kafaru law kaanu muslimiina aaya boobu moo ñu xamal ni ëllëg am na jullit yu dem safara leneen ku yóbbe mooy fa waylun lil musalliina allaziina an salaatihim xaashi'uun bala wax ne imaam bi jiite ca jàkka ja te xol ba nekkul ci biir jullit kooku bu ëllëgee ku ko xaar bu safara na ko fekk. bari na koo xam ni foo ko fekk xol baa ngi tudd yàlla wa yaksuru shikru bi lisaani wa qalbuhu adnasu min kulli janaan foo ko fekk ma nga yor kurus bari na di tudd yàlla ci allah mi ñam waaye xol ba tuddul yàlla xol mooy liggéey bi kon yéen soppe yi suñu asal yi ak yéen jullit yëpp ñu góorgóorlu ci xol yi wii de ndox mu ñuul mu bon mu salte mi nekk ci xol yi te mooy jiw yi ak xastaate yi ak bëgg àdduna yi génne comme ça nettoyé ko ak sarbet pas-pas ak dogu ak jëm ci yàlla yàlla jaral na ne ndax ku bëggul yàlla mën a bëgg sëñ Tuubaa mën bëgg rasulillahi mën a gaa yu baax yi mën si bëgg naa sëñ bi gëm naa sëñ bi bu fekk yow yàlla mi ngi ci kon ginnaaw bis boobu moom ñu boo demee ci ginnaaw dëkk bi am na dëkk bu ne te ñu fay dëkk ña nga mel ki nga wax léegi waxal mu uju nga woo ko ñu la loolu ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax baax kon dolli ko ruux ruux day mbir mu kiimaane moo xam ni ustaas yi boo leen koy laaj xamuñ ko dara boo koy wax suñu dëndee di déggee waaye dafa am cheru la bu suñu borom def ci jëmm ruu joo xam ne mi ngi mel ni si Abdou Khadir na ci dund xam du xol bi ruu ba nga xam ne buy dox lu càgg na tànk yi mooy jóg di jóg tànk yi comme ni nit ñi doxee déedéet day taxaw benn place rek di dem ruu ba mu doon yaram roogaay dëgg Cheikh Amadou Bamba bi mu jógee ci géej gi julli ko ngay dégg ci mu julli ci géej gi bu doon nitu geset kuy lekk ba suur di naan ba ma ne di nelaw bu doon moom dong la bu dugg ci géej gi day faam waaye ruuga keroog ruugam àndal moo ëpp doole géej gi ruu bi mu dëng ma géej gi géej gi dafa mel ni luy way ndax xas mu dog yàqin nit ndax xam-xam ngëm dafa am ay maratib kawe ki àgg ci ngëm ngëm bu tuuti bu fekk dana fekku sara am na koo xam ne ngëmam àgg na ci moom foo xam ne benn fekku karaw ci ay xefam boo ko jëlee teg ci kaw suuf suuf attanu ko asamaan attanu ko te day dox ci kaw suuf si suuf si du ko attan waaye yërmande suñu borom moo koy téye nit dana àgg foofu dëgg waaye nit àgg ci mbon ba jéego ba mu jéego suuf si ni wuy ndax ak mbonam ak bakkaar yu bëri dinañ ci yàlla bis te mën na ay nit dong la kon nañ ñëpp a yem déedéet yëpp bu dee jigéen ñi ñu góorgóorlu ñoom it cor gi cor gi dënd yi ni feeñal ci biti di ay xeeti paccal ak yu ne wax ne lépp lu wóor te feeñ ci moom muy dëndam ba wala ay poojam wala ab di mboxam bët bu ca tegu te wuru caa tegu li mu bët yooyu ba ëllëg yow wax yaa am suñu borom dana ko soppi ay rab tàngal ko ba tàng di ko ñaas ca safara loolu ku la koy wax ngay rey xamoo ni ngay te yaram yii ñuy diw di ko fonk di ko funkil ñetti ñett douze heures de temps ko amee ci ci bàmmeel day tàng jër daal di funki daal di neewi 24 heures mu daal di toj bët yi nga doon yokk ay xef ak yu ni demee sax dana fa jaar bëtt ci aw génn ci ay bakkanam génn ci la nga gënoon a fonk di ko jaay sax di ko lekk ba mu jeex te doo ci mën dara waaye am na lu ko mën a sécuriser ba sax bu ko lekk muy ngëm ba tey kon roo googu ca la jaam ñu rawante roo lu muy dunde tudd yàlla bu bari ak di ko xalaat fikru sikru dafa am mooy di tudd yàlla ci saw làmmiñ laa ilaha illallah malaayka yi seen kàttan bëri na lool am na malaayka yoo xam suñu borom sàkk na leen bu doon laylatul qadri da ngay wax ni bu doon ruux tanazalul malaayikatu ruux ruux moomu bu ko suñu borom digaloon ni ko jëlal asamaan juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar la jaaluhu luqmatan waahidatan mën na ko rek cëfet daal koy lump lokko te ko teye wax ay ko dara borom na xam ni àdduna sépp mën nañ ko jaarale ci ci xarante ba baaraamam te du ko yëngal sax moom te laa ilaha illa laa ju mat mënuñu ko wax ndax fooraayu bàgg buñ ko waxee dañuy daal di xam kon malaayka yi ko ragal yàlla malaayka yi yenn aras juróom-ñett lañu wa yaxmilu arsh rabbika fawqahum yawma sin samaaniyatun ñooñu malaayka yi nga xam ne ñooy alkurubiyoon yawmal xiyaam jin wax léegi wa jaa rabbuka wal malaku saffan mooy bis ci nga xam ne bu nit ñi teewee ñaar téeméeri sàpp ak ñaar fukki lay nekk keroog yonante yi dañuy tiit wali yi dañuy tiit sëriñ si dañuy tiit taalibe yi dañuy tiit ñëpp ay tiit ëllëg amul kenn koo xam ni dana la tene ca bis boobu lu may xam fan la mbirum di mujj ëllëg moo tax seet ñi ngay àndal seet ñi ngay jëflanteel seet ki nga yaakaar seet fi ngay jëf si jëf am solo kenn ko ne ni namu pas-pasam jamono ne ngir waajal bis boobu na ko góor yàlla nga ndax yaa ngi waajal bis mu déet yow wax yow lay waajal al maaruful kurqi yi maa ngi guddal xarit daa war bi daa maa nag no maa nag noddukat bi daa mu fekk ni jullit yi fu nu daje doon ne ndax yàqin xam-xam la buy waaj a réer jamono buñ toll ko sax daanaka ngëm dafa war di renforcé wu ci jamono bu nekk jigéen ñi am nañu royuwaay bu baax rabaatul adawi yi amoon na sëriñ boo xam ne moom la ñuy wax al sufiyaanu sawari as sufiyaanu sawari yi nga xam ne ci ndawam na ma na ma baal bi mu xamee naa topp ak ndawam sufiyaanu sawari moo ko doon waar ci àdduna ba mu dellu si waat yoon yàlla waaye dund na ci yàlla moom en tant que jigéen dund ci yàlla dund ci yàlla boobu nga xam ne dund ni ma ko waxee léegi ci roo roo gis la benn waxtaan benn ustaas moom yow yéen xanaa yéen da ngeen yaakaar ne yow yàlla ne est na roon am rab yi pour mu activé ne ne ndax xam-xam boobu yéen descente xam nga ko noonu ah xàkkee xam ne loolu pour ak lu su ko feeñal dañ ñoo ko sañ wax duñ ko sañ a wax tuuti na ciy jóge la ca mën a yëg nit mooy forme mooy a digg bu sax nit mën nañoo jàngandoo benn fatiha nit si naa li wax na ko sax fatihatul kitaab suñu borom xamal na ma ci loo xam ne bu ma ci joxoon ndigal danaa saraak fatiha te fatiha juróom-ñaari aaya dong la ci Malik fatiha juróom-ñetti aaya la ci ngirum Shafii loolu ñu dugg ci tuuti ci sara bu doon ci wàllu julli nga gis tijaani di ubbi ko bismillahi rahmaani rahim murid di ubbi ko alhamdulillah loolu du affaire tarixa de daa gis ah, ko naa kuy ubbi koo bismillahi rahmaani rahim nangam déedéet imam Malik dani kuy ubbi koo julli da ubbi ko ci alhamdulillahi rabbil alamin sib nañu képp kuy julli farata di ubbi ko bismillahi rahmaani rahim ndax fatiha juróom-ñaari aaya la te bismillahi rahmaani rahim bokkul ci fatiha saafiyaani daanit déedéet fatiha juróom-ñetti aaya la ndax bismillahi rahmaani rahim day bokk ci fatiha kon kuy julli te ubbi ko bismillah rahmaani rahiim si ngir dañ koy sikk maalik ni sib nañu ko ubbi ko bismillah saafi ni sib nañu ko ubbi ko bismillah loolu foofu la mbiri taamal waaye du affaire tënk kon Chaamal Tijaani gis si ni yéen tam saa sam nee na li kon li kulli mri'in si baanin lam yabda lam yabda bi bismillahi rahmaani rahiim foofu aqta bépp mbir moo xam ni da nga koy tàmbalee. da nga koy def tàmbali ko bismillah ma mbir moom day dox kullu mri'in si bàyyi la sa daa sa wax xamante yaa daan ni kon mbir mi ëpp solo nga xam ne moom la ñuy def mooy julli kon sama julli man daa koy tàmbali bismillah ma de ay taalibeem roy ko ca mu bàyyi liñ si waaye mbirum Malick yëpp ay jamono ci la ulama yi loolu bu ñu doon waxtaan ci séran day nekk waxtaan yoo xam ne day fóot waaye taxu ñëw ñu waaye dañ ci leer bas na waxuma sax moo jóge bu ñëw kon yàqin bi Sufyaan Sawri moo doon waa Rabiatu Adawi ba mu dellu si waat moo ne Rabiat dem na ci dolliku ruux yi nga wax léegi ak dolliku ngëm xanaa daa su daa daa sub Sufyaan Sawri wala déet loolu ab laaj la waaye da ba julli jot na ñu nekk ci am ñax xaaxal rabbi ne ka sufyaan julli jot na de nañ julli sufyaan moom nag mu ngi buddi ñax ya di fàgg fàgg fu bale bi andale xaaxal bi rabbi xam daa kif si yàlla rek lal ko si jaww ji daa taxaw ci kaw jaww ji daa ne allahu akbar daa julli kee di ab sëriñam mënu ko mu gis ne ah julli ko yow saagal nga di te kooku jigéen rek la bu ne ba jigéen toll ci suma radab naa asfala saafiliina balaa jàpp ne am na taar ay weenam di ci biti sol lu dang lu seere fàtte boromam ah loolu ëpp naa def war naa seetal seen bopp war nañ seetal ndax na lam benn war a kon dañu yamale foofu buñ si doon waxtaan dëgg-dëgg nañ ci koo tuuti ci mbirum roo gi doon waxtaan léegi ak si am ba ni mu ak ni roo gi waaye si xaalis dina ci dikkal léegi suñu tàmbalee rek moo ko ñaan

Pambal TV vous présente Pambal Production Pambal Production seen base mi ngi nekk fii ci diwaanu Mbapat nekk foofu ci siège u Pambal TV ah boo jokkoo ak ñoom lépp loo xam ne am nga ko ci. ci programme muy xew bu mu munti doon mariage baptême ay gàmm ziar lépp loo munti am dawal nga jokkoo ak ñoom lépp loo soxla ci bâche wala nga soxla ko ay chaise am na ay fauteuil VIP am na aussi ay chaise VIP lumière sonorisation lépp loo xam ci décoration la amuñu ci moroom lépp loo xam ni tamit bëgg nga ko ci organisation a waa Pambal production taxaw nañu ngir jàppale askan wi nekk diwaanu région de Thiès ak li ko wër